sëñ Abdou Khadre nag tey dañ ko seet si nag bëgg ama moo waxtaan waxtaan bu yaatu ñu waxtaanee xam-xam aussi moo war a defay révélation yu am solo euh, si làmb ji si politique bi incha allah dina leen wax que bi nga xamante ne mooy dox si digganteeg Ama Baldé ak Gris Bordeaux mooy daan incha allah dina ko leeral dina si combat bi nga xamante ne mooy dox si digganteeg Ada Fass ak Zos donc xaar émission bi ba mu jeex dina leen wax kan mooy daan cheikh bi balaa ñu dugg si programme bi danay lay daal di bàyyi nga nuyu mbokk internet yi ñu si tànn. salaamaaleykum wa rahmatullah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokk internet yep fo ñu mëna nek ci biir réew mi ak bitum réew di leen ñaanal yalla defal leen jamm ak wër tay ñi wax ne eh, di ñaan yalla rek lepp lu ñi fi wax yalla na doon jariñ ci doom adama yep yalla bu ñi wax lu lor nit wala ñuy def lu lor nit yalla nañ ci yalla musal bisimilah. macha allah macha allah sëriñ Abdou Khadir Bousso di la ziar bu baax a baax baax di rafetlu bu baax sa nuyu seen yooyu tànd ak dal dañuy tàmbale programme bi rek xam naa rek suñu première question dañuy waxtaanee si waxtaanu seet macha allah ku ne xam ni sëriñ Abdou Khadir Bousso seet bi nga xamante ne mi ngi koy def nekk na seet bu am am am solo nga siy gis nag képp koo xamante ne mi ngi lay ñaanal mi mi ngi ñëw si yow pour nga seetal ko Cheikh bu ñëwul ñu seet. waaw baarakallah di sant yàlla bu baax ndax it sula la yàlla mbir xam nga nit dana gesu wala mu jang ta du xam wala ñu jox ko ta du ko mëna jariño waye yalla mo ñu jagleel li ñu jot xam ko sneew borom bi tabaaraku taala rek lañ koy sante masha allah ndax it moy ki joxe xam-xam ci ginaaw bi nit ki góorgóorloo moy hmm. ki joxe wir hmm. moy yor fan wu guddu moo yor wërsëg mooy ki mat a sant looloo tax ci li nga xam ne la laaj nga ñu ko nag muy lu jëm ci wàllum seet seet defe naa ne ñiy wax ne mat naa ko bari na lool waaye yàlla dimbale ci dimbale la ci rek mooy li am solo loo ko man man na fekk yàlla dimbale la ca baloo seet mu doon loo xam ne lu wér lay doon hmm. seet nag daa bëri façon hmm. seetoo pettaaw seete wuñ seet genn gidit li nga xam ne mooy li lislaam santaane te ñu man ko lool hmm. te may wax ne nag hmm. képp koo xam ne hmm. seetal naa la xam naa boo jëloon sama téléphone bi tey di lire message da nga ci lire magum juróom-ñaar fukki at wala magum juróom-ñeent fukki at Allah mu taxaw waat ci yàlla waat ci rasulullaay ne li nga ma wax nit mosuma ko wax ci seet ci yàlla dëgg la kon nag may wax ne loolu suñu borom moo ñu ko jagleel moo ñu ko dimbalee ñu di ko ci sant waaye may wax ne képp koo xam ne da ngaa am lu la jaaxal ci sa aduna wala nga bëgg xam lan mooy say sarax ndax seet dafa am solo dana tax nit ki xam ay saraxam ndax sarax dafa mën dimbali nit ni muy dimbalee nit mooy nit ki su xasee xam sarax yi muy saraxe dana tax ba lu bëree bëri teg mu tegeeku ci kawam kon nag may wax ne seet moom yàlla dimbal na ci ba eh, suñu doon waat wala ñu mën a teg eh, mu doon championnat bu ñu teg. Mhm. danaa mën a dem inscrire wu ñeme naa ko. taxaw ñëpp taxaw ma seet. macha allah te mhm. xam naa ne bu boobaa. Mhm. bu soobee yàlla bu ma jël première. du ma passé deuxième. loolu moom leer na ma naa ñëw. ci Sénégal gi loolu am na waaw loolu moom mën naa mën naa cee teg sama loxo ko indi alxuraan ma teg sama loxo moom laa gëm. te bépp seet ngay seetee. benn système dong laay seete. Hmm. benn xeetu seetukaay rek laay seete. Hmm. waaye nag dafa am seetu sëy bu dee ci sëy nag moom li may ni may seete nii duma ko seete ci sëy. waaw hmm. ah, bu dee ci sëy moom. beneen façon seet la. waaye bu dee dangay seetal nit ki ngir mu xam ak dundam fan la ci war a taxaw wala jafe-jafe yu koy dal lan moo koy teggil. wala lan la war a saraxe wala lan la war a fexe ba mën a mucc. yooyu rek incha allahu rabbi kuñu wo woo mhm. daañu la wax dañu buñ la sétéré dañu wax la ci gën mhm. lu ñu mën gis nak dañu la ko wax mhm. loolu mom yalla defal nañu ko macha allah wax ne man sax nit dana wa dana wo ne ma sétal ma ma tedd fii yalla wan ma ay mbiram loolu am na ba allahu akbar ah. bu ci guddi rek barki dem astaghfirullah am na ku wo di ma lo mana ne ko mënuma la ñaanal buma ma xam nga kan la gentu wallaahi wal kitaabi hmm. bàyyi su lay gay mu dëkk njaareem laa géntu ñu ne moo ko mën a hmm. ñaanal hmm? barke leeru alxuraan te góor googu moo ko gëjee gis ak léegi ëpp na ñaar fukki waaw ba ma tëddee moom laa géntu ñu ne ma kii bàyyi sulay gay rek mooy ki mën a faj aajoom moo ko mën a ñaanal waaw ma dem ci géntu gi ma dem di ko seeti di seeti bàyyi sulay gay moomu dese fa ak doomam doom ji ne ma sëñ bi di joxe saafara ndox la lay jox ndox ne la du bind du kii ndox daal la lay jox nga dem. bul du maanaam du nekk fii di la jox ay kéeg yooyu xam naa ne saafaraam sépp ndox la lay jox nga dem ma xam ne kii ma mën a kii. borom baatin la waaw kon nag la ma waxoon rek. Mhm. man su ma la mënut a ñaanal danaa la booleeg ku la ñaanal. macha loolu yàlla dimbal nañ ci. Mhm. am macha allah euh, macha allah sëriñ Abdou Khadir Bousso kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax. Mhm. dañuy dala jàll nag suñu beneen question rek jéem a waxtaanee mbirum koppar mbirum alal mbirum xaalis ki nga xamante ne buntam dafa tëju. may may wax na nag kooku nag na ko ni ku képp koo xamante ne am nga aajo. Mhm. bëgg mu faju mhm. na nga dem seeti ko maa ngi waat ci rasulullahi sama bàmmeel laa la sama loxo ndeyjoor bii ma na la la sama bàmmeel laa kii. wallaahi ba mu gëjee gis ak léegi. mën na ñaar fukki at. daaram man waaye ak léegi ëpp na ñaar fukki 2002 la woon laa fa gëjoon booba laa ko gëj a gis tamit yàgg na waaye yàlla mi ma tiim xam na ne képp ku fa dem yàlla na fa ca aju xam nga nit su fekkente ne da ngaa gis ci moom leer da nga koy wax ngir yàlla rek mm-hmm. looloo tax ma wax ko macha allah am na solo bu baax a baax a baax ñu jàll si wàllum ubbeeku mm-hmm. wërsëg waaw may wax ne wërsëg moom mm-hmm. eh, doomu aadama yëpp la ko yàlla bindal kenn ku ci nekk am na àndaari wërsëg yoo xam ne yàlla nattal na la ko waaye mm-hmm. léeg-léeg doomi aadama yi ci boppam mm-hmm. ñooy gàllankoorante ci seen biir loolu yàlla dafa bi mu bindee doomu aadama yi dafa leen a bàyyiwaat ci seen biir mm-hmm. waaw ni ñu mën a reyantee jël nit rey ko léegi suul ko léegi jël nit faagaagal ko léegi noonu lañ mën a doge wërsëgu nit allahu akbar waaw noonu nit mën a doge tànku nit léegi noonu la nit mën a dogee wërsëgu nit képp kuy wax loolu nag ku naan loolu mënul nekk da ngaa yàlla moo bind wërsëg yi ala kulli xaal lu am na waaye hmm. noonu la yàlla bind la tànk nga war cee dox hmm. noonu la doomu aadama bindee euh, mën a dogee wërsëgu nit ni mën a dogee tànku nit wala mu dot bakkanu nit hmm. lépp nag ci coobare yàlla lay doon ndax yàlla dañoo bind bàyyi ñu ci àdduna waaye nag biir àdduna bi yàlla daf ñoo seetaan di xool na lañ war a doxalante waaw ah. ba xam yermande ji nga xam ne ëmbal nañu ko moom hmm. ñun danañ ko jëflante ci suñu biiram déet kon may wax ne nag képp koo xam ne nag hmm. da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wërsëg hmm. boo ñu wooyee bu ñu xamee la koy saafara insha allahu rabbi daañu la ko defalal allah waaye nag xam nga nit ki man na laa woo te doo xam luy saafara wërsëgam dëgg la nga ne ko demal seeti beneen sëriñ wax dëgg yàlla yàlla du xamal nit ki lépp waaye wax dëgg yàlla lu yàlla xamale ko su néew képp ku ñu woo Mm-hmm. bu ñu xoolee sa mbir suñ ca mënee dara daañu la ko wax suñ ca mënu dara daañu la wax ne mënuñ ca dara. Mm-hmm. dama nga xooli keneen wa ilaa suñu gisee ne lii diw sàngam moo ko mën a faj. Mm-hmm. daañu la wax demal sa diw sàngam bu ñu ko gisul nag dañ naan la xamuñ ko mën a faj. xamuñ ci dara wax dëgg yàlla. macha allah hmm. euh, macha allah Serigne Abdou Khadir Bousso kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax euh, dañuy jàll suñu beneen question rek si li nga xamante ne macha allah yàlla nag may na la si xam-xam ju bari muy nit ki nga xamante ne euh, dafa bëgg kaaraange sa ndomba bi nga xamante ne macha allah wër na réew mi wër na Sénégal wër na fépp. waa xam nga kaaraange hmm. moom. Hmm. dama cee wax. waxati ci. kaaraange yàlla daf ñu cee dimbali ci wàllu. bu am solo. boo xam ne dañ ko gëstu xam ko. Euh, ni ñu gëstoo yëpp mboolem xeeti xam-xam yi. Mhm. li nga xam ne moom lañu ñu xam ko si néew. noonu la ñuy gëstoo ci kaaraange may wax ne am naa ci ndomba gu may liggéey. Mhm. danaa ko liggéey nag ci tamit ci jaaro. ci jaaro ndax jaaro gis nga jaaro xaqiqa gis nga per nii rek. per mhm. per rek am na per yoo xam ne tey boo ko jëloon xooj ko. sangoo ko. lépp lu nekk ci yow. suñu borom dindi ko ci ay ja gàllankoor jafe-jafe. per rek yàlla dindi ko per rek. per yi xaqiqa suura per yi xeetu xeetu per yi dañoo bëri. Hmm. kon may wax ne su ko defee nag boo ca boolee nag def ca leneen lu nekkaat ci biir jaaro ba loolu day gën a day gën a dolli kaaraange gi. day gën a dolli dëgg la waaw. Hmm. loolu musluwaay. Hmm. xam nga kaaraange man damay wax ne kaaraange moom yàlla dong ko am. waaye dafa am loo xam ne daf ko bàyyee doomu aadama yi. tamit lépp lépp lu yàlla am rek. am na ca loo xam ne daf ko bàyyee doomu aadama yi. dëgg la may wax na nag am nañ ci ndomb gu ñu liggéey am nañ ci eh, jaaro boo xam ne danañ ko liggéey ci liggéeyu sell nag. képp ku ci mën a am incha allahu rabi boo ñu wooyee wala nga war cee am daañu la ca liggéey la nga war lañ ca war lañ ca war a def incha allahu rabi. macha mm-hmm. mm-hmm. allah euh, macha allah sëriñ Abdou Khadir Bousso kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax. ñu waxtaanee rek suñu benn question d' actualité. Mm-hmm. Euh, si làmb la ñuy ñëw. combat bi nga xamante ne moo war a si digganteeg Ada fas ak ki ñuy wax guy gi sëñ bi combat bi lan la la yàlla wan. waaw Ada fas ak guy gi nag. may wax ne. guy gi ba nii may wax ak yow. amut gàllaaj te wérut hmm? xëy na sant nit nag kenn waru ko tudd hmm. waaw ndax dañ ko jekku ci gàllaaj la ilaha illallah xaw ma moom moo néewal xaw ma ñu ko war ñoo ñooywal ci ñàkk wut gàllaaj waaye dañ ko jekk lool sax ba mu guy gi hmm. mel na ku feebul xam nga feebar ak feebul bokkuñu dëgg dañ ko jekku trop waaw dañ ko jekk ba bu su su sàgganu dana wax loo xamante ne sax. ay ay ay ay ay ay soppeem danañ ko jéppi. Hmm? guy gi guy ci boppam jekku nañ ko jekk goo xam ne. Hmm. boo moytu dana wax loo xamante ne. Hmm. ay soppeem danañ ko jéppi su ma nee tëju defarluwaat ci diggante bi moo gën ci moom. dimanche su loolu dana daanu ma nee tëju defarwaat ci diggante bi mooy li gën ci moom. su dul loolu dana daanu su ma nee jaar fa daan jaar buy bëree. ñu defar ko. mu jaaraat ah, fa mu jaaraat fa oh, waxuma ko mu ñëw ci man wala mu ñëw ci kay ma jaar fa daan jaar bu daan bëri mhm. na fa jaar ñu defar ko mhm. jekku nañ ko lool ba dafa ba ba guy gi ci waxam mhm. dama sentir ci moom ak néew kattan néew kattan gi nag su ko waxee du néew kattan waaye kattan goo dañ ko néewal doole ci biir dañ ko ci misik te li ma lay wax lu wér la kon su fekkente ne bëgg naa am ndam. Mhm. ma dem laaj. ci diggante bi wut ay gàllaaj ah. mhm. xaj na fi de. Mhm. waaye bis bu seetaanee continuer nii moom dañ koy daan jël bu ñaaw sax. doy na jël bu ñaaw dañ koy daan. dana jaaxaan jaaxaan bu ñaaw. dëgg la am na solo. Euh,